allo dërëm kaay. waaw maa ngi jaar. waaw maa ngi jégalu de dama ne. da euh, man la seex dama ne. waaw am sa benn bis vidéo bu ma doon seeraan nga am benn maara boo doon defal ay ci TikTok bi. waaw am maara bu baax. xam na dama ndax xam nga ko ndax xam nga mara bi xam nga ko. waa man daa am benn vidéo publicité bu ñu gisoon. léegi sama benn rakk euh, da da da ko woote mu ne waa ji ne day yokk ay awra ak yu demee noonu mu ne day yokk awra léegi nag sama waa ji da cee jënd benn boîte léegi bi mu ko ci diwee affaire yi dafa dem ba pare nag bi mu demee euh, naq bi yëpp dafa am ay góom nii ni ma waxee dañ ko téye hôpital moom nag bi ne ko xamee biñ ne ko foo xamee sëriñ bi dana yow biñ ne biñ ne ko foo xamee sëriñ bi dana yow nee na sa compte la gis nga ko doon publicité man ci dara dara dara déedéet dama ne. moom nee sa vidéo nee na sa sa sa sa TikTok la dugg seetaan ko. waa TikTok déedéet danga may déglu kon kooku la rek ndax moom kii ko. Euh, waa léegi léegi yow. da léegi yow ban léegi léegi yow. léegi nii nii ñu wax dañu ni ñu ngi ni ñu ngi ñu ngi ni hôpital ndax euh, moom affaire dafa dem pare te boo dafa am ay góom léegi nag yow responsabilité bi dërët nee na sa TikTok la gis nga dugal numéro bi nga ne sëriñ da ko yokk léegi nag xamu li problème bi léegi xamu li problème bi dërëm gaajo dërëm gaajo booy bi sama rakk la te bu ñu ci man ak yow ba police ndax yow yaa def publicité bi man ak yow ba pëli ndax sama rakk la man nag loo ci bañut bañu ma ko ci ndax yow publicité bi ci yow lañ ko gisee yow ko publicité ma laaj ko kon moom kat daa jaawale am déet. moom comme ma woo di ma dugal ci ay ay kooy yu dem ak yu yu ak yooyu man yooyu publicité wu ma ko man ay waxi kooy sax du ma ko publicité man man su ma koy wax dama naan la waxal ko sa bopp na xool ban vidéo la seetaan. waaw xaaral ma laaj ko. waaw kay. <coughs>